comme ce ce truc là ce commissaire Keïta là nga am sa ay doom buurul dara nga rus sa parce que nit boo demee ba commencé am njaboot rek yu gën yu bëri waratu ni nga toog ñu uñu sa sutura loo xam ne man xaw ma sama morom xamu ko woon te munoo ko weddi luñ bind la. c'est un juge qui l'a tracé ce justice là bi nga doon liggéey ñoo bind loolu teg ko ñoo la radié. Yo, nga a di wax dara Ousmane Sonko Yo, tu as fait pur commissaire Kaita. Yo, li naan xam nga li un assassin un assassin c'est quelqu'un qui tue un assassin c'est quelqu'un qui tue c'est quelqu'un qui a tué donc nous condamnons ko ko ndax dafa dindi euh, euh, vie wu jàmbur dafa vie commissaire Kaita, vous êtes pas loin parce que vendre de la drogue mu at rey rey parce que drogue la drogue, lan une rey détruire le comme personne et c'est ce que tu faisais tu es un, tu es un vendeur de drogue je ne sais pas si tu le fais encore mais c'est ce qu'on a écrit que tu as vendu de la drogue tu es pur qu'un assassin parce que tu es dit, tel rey la ben yon. nga mais yow sa askan biñ ne la protéger ko sa askan bi nga xé juré ñu né yow commissaire Keita ya koy protéger yay défendre sa askan yay défendre sa drapeau yow sa askan bobu nga jël di tirer di di len jaay lo xamné lu la ñuy rey la doucement doucement dee gi gën a nga nga la ñuy torturer doucement doucement yàq sen aduna commissaire kayta la nga war layo ji nga waroon tok tay di ci di ci jang de jéem tout ndax ñaata doomu adama nga sacrifié ñaata doomu adama ña de dee nga xam tay tey jaratuñu dara famille nga détruire au lieu de les protéger commissaire Keïta c'est ce que tu as fait à ton peuple toi tu dois être le dernier des derniers à parler tu dois être le dernier parce que yow da nga nekkon ci lo c'est fondamental pour un pays moy sécurité

Ousmane Sonko lañ ko dénk di ko téye ci téye bu rafet bam fay jógee né len li xol len dara la ma ko fi dara defu ma ko fi yo mom dañ la jël sanni la ci biti ñi ne lepp luy luy luy tenu luy sécurité Sénégal yow bokkatoo ci tu as détruit notre peuple commissaire Keïta toi tu dois être le dernier au dernier à parler je suis désolé nak pour tes enfants parce que da nga am jaboot ku baax liñ naan wàllu dina juddu sax ci nit ko bon parce que tu as des enfants patriotes mais nous, ñun boo ñëwee langue politique on parle avec toi tes enfants tes enfants nous ñu gëm nous mais c'est désolant c'est pas ce que je leur souhaitais avoir un père comme vous un père qui vendait de la drogue un père qui détruit détruisait des vies des familles parce que doomu jàmbur nga jur ko nit ko ñu jur ko jurom ñenti weer ëmb ko wasin ko nga yaakaar ne sa doom moy gën képp ci kaw suuf ginnaaw yàlla yonent bi nga ne sama doom bëgg naa mu baax yow nga joggé feulé diko jox lo xamné da koy rey ba mu taggo famé yow qui est plus mauvais que toi yow jigen ni dañ la waron jël di la sànni xeer ba nga je te jure ndax li ci doom. di ci sonn ci doom nelawoo guddi nelawoo bëccëg ngay yaakaar mu doon keneen ku kenn ku baax yow nga ñëw yàq ko commissaire Keita yaa bon bu ñu tegee politique teg lépp de côté mais xool doomu aadama ak doomu aadama nga jël loolu yow nga xam ne yaa sol sa tenue yow mi nga xam ne yaa juré pour sauver sa patrie nga ñëw di yàq sa patrie yaa bon commissaire Keita yaa bon yaa yées du lu ñu inventé de lu fait, de dañ ko de noir sur blanc va dire ça à ton maître Macky Sall parce que ñu mel nii rek mën a nekk ci wetam yow sa genre genre ay Aïssatou Diop Fall Mame Ngor Diazaka ay kura Macky Fouta Tampe genre yooyu rek amul leen kenn ko xam ne mun nañ c'est même ces nouveaux ministres là kenn ko xam ne nga ne c'est un exemple de vie man Macky Sall tegal ma kenn ko xam ne serait-ce que je dirais que Macky Sall waaw au moins ça il l'a fait il a pris ce monsieur, ça. Rien, Macky. Le vrai terroriste, c'est Macky Sall. Amoul demal maa ngi ñëw yéen nag terrorisme boobu ci terreur yooyu bu ngeen ci buggee la rek vos pièces d'identité c'est inutile ngeen may faut Sonko dem ñu jël ko filmer ko nemmeeku tour nemmeeku tour c'est bien Sonko est en train de faire son devoir en tant que patriote mais nous est-ce qu'on est en train de faire notre devoir Même si je suis loin, j'essaie de faire le maximum avant 2024. Le maximum, nous avons une pièce d'identité. te inscription jotee ñoom am inscrire c'est ça faire son devoir à la place ngeen ñi est-ce que nous on est en train de faire notre devoir Sauf qu'il est en train de le faire. On n'a même pas besoin de le filmer. C'est un patriote, il fait son devoir. Est-ce qu'on doit te filmer parce que tu vas au travail Non Si tu es en train de faire ton devoir, tu vas faire ton devoir et basta. Donc, nous, nous devons filmer sur nos propres. Nous sur nos devoirs. Qu'on est loin, qu'on est de près. Parce que y a une pièce d'identité au Sénégal. Nous avons une pièce d'identité les gens yi nga xam ne ñun keroog jour élection législative yi ñoom ñi nga xam ne voté wul woon ñu def suñu réunion ma ne leen hey yéen amul pièce d'identité ngeen xam vous êtes des patriotes et je savais que c'était des patriotes et ils me l'ont démontré ce jour-là que c'était des patriotes parce que le soir nous ñu réunion yi man ñu jël leen tracé leen sànni leen ci école Kaolack yépp ñu maintenant nous on va voter vous vous sécurisez notre vote école yeb yeb ci fa école ko fa jël réunion on s'est dit la vérité actuellement que je vous parle ñom dem nañ pièce d'identité ah ouais parce que 2024 ñom avons voter 2024 nous war voter parce que amul sax sécuriser non parce que 2024 Macky Sall day xamné ne na pare na à ban voilà l'oreille rek la doon bëgg wax ma il est presque 3 heures Voilà, donc euh, di len gërëm di comme je dis toujours le seul terroriste c'est Macky Sall lui qui sème le terreur chez nous et c'est désolant parce que c'est lui qui devait nous protéger

voilà c'est tout c'est tout merci à tout le monde merci Jules Touré Touré nous le Nous nous len les patriotes Nous na nous yeen ñu daw ci parce que nous ko ñu Nous nous ko jënd suñu Nous on croit à nos forces ñi jege Macky Sall ils croient pas à leur force ñom bu mun nañ toog fii di wax ba ëlëk c'est pas leur problème mais ñun buñ kenn ku jënd suñu baat té pour bo bañé ku jënd sa baat il faut nga dem dans sa dolé ba nga xamné do talal lox loxo c'est ça que Sonko nous a appris quand c'est l'heure de travailler on va travailler bu heure bi jotee day jël vol dem Ziguinchor dem liggéey bu liko ko war jotee mu dem def ko. Donc, c'est ça. Euh, <laughs> non, tu n'es pas en retard. Après, nous avons Félix euh, les patriotes, di remercier ba Nous avons rabbi euh, ñu gisante ci nañ nañ ku que rek Que rek rek bu ko ndax pièce d'identité avec 600 francs dina am son extrait dina certificat de résidence dem déposer pièce d'identité yomb yalla yàlla yalla ñu xol fi mu ne on est sur les mille et quelques ñu ngi defar dem yóbbu boy da la ñuy jël fekk leen seen kawlal jël leen motiver leen ñu dem défar seen pièce d'identité kese loolu rek moo ñu mun sauver ginnaw yalla amul leneen Macky Sall il faut ñu dóor ko bam mu yëg ne nañ ko dóor chaque pièce d'identité rek day nek ay yaay ci kawam jeexna amul leneen. Merci encore. Allez, au revoir. Félix, euh, Pauline, nous y allez au revoir et bonne journée Madame daw je ma daw euh, bientôt inshallah. bonne journée à tout le monde.